bo jëm ci mbirum li ñuy wax Ousmane Sonko Adji Sall en tout cas ñun amuñu ñaari wax ku ñu xam xam ni amuñu ñaari wax bi mbir mi commencé ba tey la ci doon wax la ci waxat moy suma rak suma xarit le président Ousmane Sonko état boko bëgg faga gal état moko bëgg complot loolu lañ ci mësa wax.

auréolé de la base politique. Puisque un homme politique qui lève sa main, qui dit je vais être président, mais il doit avoir une base politique. Puisque si vous ne gagnez pas une commune, vous ne gagnez pas un département, mais vous prétendez pouvoir diriger un pays, mais cela est impossible. Moi, si je ne dois pas, peux pas gagner Guédiaway, je ne vais jamais prétendre à diriger le Sénégal. Mais je gagnerai mon département. Je gagnerai ma commune. La banlieue me soutiendra, c'est la raison pour laquelle je suis sûr que je remplacerai le président Macky Sall comme président. Mais puisque ça, c'est la déclaration de ma base et l'illustration la plus parfaite, c'est nos dernières victoires éclatantes à Guédiawaye et dont l'illustration est le maire, député maire, l'honorable député maire ici présent. troisième mandat bi nga xam ne dañu nee ne Macky Sall nee na daf ko bëgg waaye Macky Sall na yërëm sénégalais yi waa xanaa bu boppam sax mu yërëm sénégalais ñun sonn nañu ñun sonn nañu sonn nañ trop moom bu sonnul sénégalais sonn nañu Macky Sall tulleeg Mali Macky Sall fii Macky Sall fële waaye doy na boo yore am réew fukki at ñaar la nga war a mën def yëpp def nga ko fukki at ak ñaan nga yore réew mi Sénégal jox la lépp nga nekk chef d'état nekk chef suprême des armées nekk la patron de l'administration waaw pendant fukki at ak ñaar ñu jox la na doxalal nga doxal ba egsi fii tey réew mi ndóol réew mi sonn réew mi jaaxle waaw xanaa nag yow war ngaa doyal nag waaye nag bu doyalul je pense que loolu Sénégal yi tontu nañ ko danañ ko troisième candidature moom du am. troisième candidature du am te bu ko bëggee du ko bëggee daañu ko génne réew mi génne ko réew mi nag mooy lan mooy Sénégal sénégalais yi ñoo moom Sénégal sénégalais yi ñoo moom Sénégal kon nag sénégalais yi ñoo moom seen réew Macky Sall mënul forcer sénégalais yi ne moom Macky Sall moom moom Sénégal. bu bëggee forcer nag daañu ko forcer parce que ku bëgg a forcer peuple peuple daal dina loolu moo tax ci xeex boobu nga xam ne dañ ko dafa koo teg pour ne day am troisième candidature ñu koy wax ci biir ay mbooloom en tout ñi ma àndal mooy la coalition Manko Yewwi Sénégal ñooy nekk ci kanamu xeex bi nga xam ne nii mooy xeex troisième candidature boobu ndaxte Sénégal yi bëgguñu ko te nañu nag Sénégal lañ fi nekkal. dañu ne Macky Sall moo gën a baax profil maanaam taxawaay pour jiite réew mi 2024. waaw loolu sax intéressé wul Sénégalais parce que Macky Sall jàll na ba pare Macky Sall bokkatul bokkatul Macky Sall bokkatul Macky Sall gasi Macky Sall wóoro wóoro gasi kon nag tey jii mu am profil bu baax mon profil bu jégg ak loolu yëpp intéressé wu Sénégalais yi waaye dama yaakaar ne président Sénégal dañ ko war a tànn xam nga ne Sénégalais yi nag jot na nag ñu fal président parce que Sénégal nag dañu am lu ñu tàmm dañu fal dañuy fol waaye dama yaakaar ne 2024 bii di ñëw ak adduna bi ni mu lambaajee ak jeexi jaaxe yi am ci réew mi Sénégal day war a tànn président dañ ko war a fal fal président nag mooy fal président bu loxom set. suis fal président bu bëgg réew je suis fal président bu yërëm réew je fais fal président bu la compétence le président bu ay relation le président bu am base politique madame, fa mu jógee bu ne dafa bëgg a nekk président waa dëkk ba ne d'accord nañu pour mu nekk président parce que olof def ne bala nga na naam ne président boobu nag mooy Malick Gakou bii bu en février 2024 dinaa nekk le cinquième président du Sénégal tàllal loxo Sénégalais yi ñu ànd liggéey ak Sénégal tabaxaat Sénégal ba mu am xar kanam bi ñu soxla